إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين eyen mbokk julit yi gannaaw ba ñu sante suñu boroom mi nga xam ne dañoo war a sax di ko sant wéetal ko moom dong yooyu ñu koy jaam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yónni woon ngir mu jàng jàngal ñu luñ koy jaamu yàlla yàlla boole ñu ca ñëkk a gëm topp ko ca yàlla saxal ak julli ci moom ak njabootam bay la yu jëm mbokk yi bu dee loolu wéy na ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla képp koo xam ne nii day doon nga ko ragal yàlla xamal ne yaa gën ci jaañu yàlla yi doomu aadama yi gënante wuñu ci seenu judd gënante wuñu ci seen xam-xam gënante wuñu ci seen am-am ci gën sa ñoom daal mooy ci gën a ragal yàlla looloo tax suñu borom woo nañu ne ay yéen ñi gëm ragal leen yàlla te sàkku ni ngeen di jege seen borom ngeen góorgóorlu ci yoonu yàlla lii day mooy tax ngeen mën a texe mbokk texe ngi noonu am jàmmi àdduna jàmmi àllaaxira benn yoon dong la mooy toppal sa ndigali boroom gannaaw ba nga gëmee bokkaale woo ko ab dara xam leen ne ñu ngi dund ci bis yoo xam ne ay bisi liggéey la mbokk bi bisu fay firiwul ne ñii jaamu yàlla ñoo dajale xiiru àdduna firiwul ne ñii mooy yàlla ñoo dajale mbugalu àdduna mbokku àdduna këru liggéey la waaye fay gaa ngay xaar ci àllaaxira amma bu demee àllaaxira su boobaa it liggéey amu ko fayee fay dong mu ma fa am mooy gis boo xam ni loo ma sa def ci lu baax ma nga la fay xaar loo ma sa def ci lu bon ma nga la fay xaar ay fay jàng la fay faar suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ni maa ngi leen di moytu loo sama bopp ndax yàlla daa am yërmande ci ay jaamam bokk na ci yërmande mooy mu leeralal ñu yoon way tax ñu tabbi ajjanam ja leeralal ñu yoon way tax ñu tabbi sawaram ja loolu moo tax ba gallawaay yi bokk julit xam leen ni sunu borom yàlla de moo bind lu mu mën a doon waaye moo tànn ci biiri mbindaa fanam la ka ca neex ci ay place amul kenn ci yéen ku réere ne makka moo gën feneen fu dul makka gannaaw ba madina gannaaw ba aqsa tànn ay mbindaa fanam jël te ñoo xam ne da leen jagleen ñii ay yeneen naka noonu i tamit la tànne la nga xamee ni nii mooy ay jamono bokk na ci jamono yooyee li nga xam ne tey jii ci ngoon mooy seen tubu jëkk ca la nga xam ni mooy weer yi yàlla wormaal weer yooyee nga xam ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na bam bindee asamaan yi ak suuf utal ko yoon wu muy jaar mu ne defoon na weer yi fukki weer ak ñaar lii day mooy diine boo xam ne diine bu jub la doonte ne ne mbokk julit tey jii li bari ci doomu aadama yi tëralin woowu yàlla tërale woon ay weeram xamuñu ko tappatoowuñu ko bu doon ca yéefar yaa loolee moom du problème waaye xattaa ci biir julit ñi li bari ci doomi juliti tey lan lañu xam ci at mooy janvier février août décembre ila axiri waaye mbokk loolu xam leen ni calendrier la bu jóge ci ay yéeféer bu dee dañ cay sukkandikoo na doon loo xam ne dafa aju ci sunuy rendez-vous yi àdduna amma lépp loo xam ne daa aju ci jaamu yàlla jullit du ca xool beneen calendrier bu dul calendrier l'islam bi nga xam ni mi ngi déparé ci tam xarit mi ngi jeexe ca la nga xam ne mooy tabaski loole di fukki weer ak ñaar suñu borom séddale ko at mi tànn na ci ñeenti weer yoo xam ne nee na da koo warmaal ñett ya dañoo tegaloo benn ba moom la ñuy siintu tey ci ngoon mooy li ñuy tuddee di giw tabaski ba ca tegu mooy weeru tabaski ba ca tegu mooy weeru tamxarit ñetti weer yii yépp suñu borom mu ne weer yi ñu war mal la ngal la waay bu leen ci tooñ seen bopp ba ko ñeenteel mooy li ñuy tuddee ndeyu koor ñu koy wax rajab nga xam ni mooy juróom-ñaareelu weer ci lislaam suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam bam nekkee ci aj makka ga bokkoon na loo xam ne yéefir yi dañ ko daan def dañuy jàpp ne ah ñi ngi nii ci weeru tam xarit weer wi dey moom araam nañu xeex ci waaye nag jog suñuy noon jékku nañu leen kon lu ñuy def dañuy dem ci buxaaba yi ñu daal di génn seeni sarax ñu ne kon léegi weeru tam xarit bi soppi nañ ko changé ko beneen weer bi topp ci gannaawam bu ñu xeexee ba déwén ñu doon ko delloo tam xarit place am loolu ñu doon perturbé calendrier borom bi demoon na ba weer yi kenn xamatul ban weer ban place la yeyoo amma bi yàlla di dogal yeneen ci yàlla bi di aj makka ca la yàlla réglé waat weer yépp ba burik tegewaat place am yeneen ci bi alei salaam ne nag léegi mi ngi nii weer yi day nii la ko yàlla bëgge woon ca mooy falilahi alhamdu ni ko julit ñi xamee ba ila yumina hada su ko defee weer wi ñu nekk mooy shawal ñu ngi nekk tey ci ñaar fukk ak juróom-ñeent di séentu zulqaada muy diggu tabaski buñ ci duggee ñetti weer ya doon na loo xam ne nii lu dugg la loolu suñu borom xikmaam moo koy def ci lu neex lu ko neex ndax it bokk na ci ñetti weer yooyee ca la yàlla farataal ak makka da nga xam ne ma ngay am ca njël bii nu tabaski ga ca la nit ñuy daje looloo tax un mois avant ak un mois après ak weer wu ñuy aji di ñetti weer suñu borom ne weer yi wormal nañ ko bu ci kenn tooñ kenn yéefiri arab ya lañ doon bon bon ci seen wàllu diine ñetti weer yi képp kuñ masaan gis duñu la laal bàyyi ma boo àngal duñ ko laal ñoom gëmuñu woon sax alaxira mais dañ jàppoon ne boo ko jalgatee da ngay alko fii ci àdduna comme mbañ yu bëri yu suñu maam yi di bañ tey mbokk weer yaa ngi nii di weer yu ñu war maal léegi nag yow julit bu dee yàlla dafa dogal nga dugg ci weer yooyu nan nga koy war maale mbokk na nga xam ne loo gën a ragal yàlla gën a màggal la yàlla jàll wa ala màggal lu sa ngëm di gën a néew ngay gën a bañ a faale mandarga yàlla yi loolu moo tax ba képp ci ñun war naa góorgóorlu la suñu borom tere ne bu leen ci tooñ mbokk lan mooy tooñ tooñ mooy lépp loo teg foo wur fu wurul wala tege la gën a màgg ci tooñ yooyu mooy tooñ bu jëm sa digganteeg sa borom la ca gën a màgg mooy ngay bokkaale ak sa borom jalla waala di yaakaar keneen ku dul moom toroxlul keneen ku dul moom yëkkati keneen ku dul moom bokk na ci tooñ yooyee lam la digal ci julli nga sàgg na ko koor nga sàgg na ko lam la digaloon ci zakaat lam la digaloon ci bàyyi mboole mi bàkkaar nga sàgg na ko loolee mbokk da ngay gis ne lii moom sa diggante la ak sa borom waaye itamit nga war a góor góorloo bañ a tooñ say morom waxuma koo xam ne nii nit la comme yow waaye xatta bàyyi ma sax bu ko tooñ yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ñu soxna soo xam ne benn muus la tooñoon loolu moo ko tàbbal bir sawara kon mbokk li ñuy gis moo di ne ne naam tooñ yooyu day doon na loo xam ne nii jullit da ci bàyyi xel la suñu borom subhanahu wa taala wax nee na man day araamal naa du ma tooñ sama benn jaam mbokk yàlla du tooñ kenn bind na la may la xel tëralal la yoon bii moo jëm àjjana bii moo jëm sawara heure boo sàgganee ba sànq sam xel jaar ci yoonu sawara kenn tooñu la yaa tooñ sa bopp suñu borom it wax nañu ne ci làmmiñ yeneen tam amoo toon gooy toon ci kaw suuf lu dul ay lëndëm la lay xaare yowmal qiyaama mu bokk nag mbokk julit lu bari ci julit ñi day mën nañu mucc ci bàkkaar yu bari waaye moo am ci nag benn boo xam ne te ya ca gën a màgg la bokk ku nekk ci ñun war ci bàyyi xel mbokk mooy la nga xam ne mooy bàkkaaru làmmiñ bàkkaaru làmmiñ yonent bi alayhi salatu wasalaam jàkkoor nag moos ibnu jabal di ko wax defal lii bàyyil lii defal lii bàyyil lii ba mujj mën a ko waaw mois xanaa doo kaay ma wax la nag la nga xam ne moom nga war a gën a ittewoo mu ne ko ah ko yow mi yàlla yónni mu génne làmmiñam bu tedd ba na ko mois fexeel moytu kii mois na ko ah yow mi yàlla yónni ndax ñun daan ñu jàppe li ñuy wax mu ne mois xanaa xamoo ne ku dugg sawara dañuy jël kanamam dëppi sawara ay tànkam féete kaw lan moo waral loolu mooy làmmiñam moo ko ko yóbbee mogaayu bàkkaar bu rëy na jëw ndax tànk moo koy def làmmiñ moo koy def bàkkaar boo xam ne rëy na na aw fen làmmiñ moo koy def bàkkaaru rambaaj làmmiñ moo koy def xas as as as gor làmmiñ moo koy def fuukariwu tagg sa bopp làmmiñ moo koy def ayibal doomu aadama yi ci lu mën a doon làmmiñ moo koy def looloo tax ku nekk ci ñun war a góorgóorlu kemtalal kattanam di jéem a xool ay waxinam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne képp ku gëm yàlla gëm ni bisu penc mi ngi koy xaar lu muy wax na doon yiw wala mu téye làmmiñam xadis boobu buxaari ak muslim solo nañ ko mbokk ñetti wéere ngi nii suñu borom yàlla subhanahu wa taala daa da ci araamal ne ngalla waay bu leen ci tooñ loolee kon nañu góorgóorlu di moytu tooñ di moytu ku ñu mën a yóbbu ci tooñ ak place bu ñu mën a yóbbu ci tooñ suñu borom yàlla nee na heure boo jógee del dem di toog ak ñoo xam ne dañuy yaakaar seen borom di ko woo duñ ko bokkaale ak kenn ngalla waay bëggu àdduna bu mu tax nga leen di jéggi dem di ànd ak ñoo xam ne dañoo sàggane turu yàlla ñu ngi noonu dañoo sàggane turu yàlla lépp luñ la woo jëme ca muy loo xam ne mbiru àdduna la loolee mbokk ku nekk si ñun war naa góorgóorlu bàyyi ci xel doonte ne nii bokk na lu ñu war a gën a bàyyi xel ñu xam ne tey suñu toogaali bi gën a jege nekkatul suñu xarit nekkatul suñu soxna nekkatul suñu àndandoo toogaale bi gën a jege tey mooy suñuy portable ngalla waay nañ ci bàyyi xel ca la nga xam ne nii moom la ñuy jël suñuy waxtu di ko ca def lan lañ ciy gëm lan lañ ciy bégale suñu xol lan lañ ciy tuxal jëmale ci ñeneen yooyu yépp mbokk ay responsabilité la yoo xam ne nii képp koo xam ne nii moytuwu ko day yowmal qiyaama bu demee dana wax ay aka neexoon ma bañoon a am portable mbokk nga lay waaye xam leen ni li nga xamee ni nii moom la muy teeroo weer yi di ñëw suñu borom nee na buñ ci toon la ci jiitu mooy kon nañu dogu jéem a moytu bépp bàkkaar boo xam ne jàppoon nañ ca ñi nga ca xam leen ne bàkkaar musul baax fenn weer bu ñu warmaal bu ñu warmaalul ci yem waaye mbokk yéen ñépp xam ngeen ne dem fee ca mbedd ma tere basket bee njaaloo fa fukk yoon ak juróom moo gën nga ñëw ci néegub yàlla yàlla bi njaaloo fi benn yoon lu waral loolu mooy ki nga xam ne daa def la bon ci néegub yàlla bi boole ne def bakkaar ba pare boole xotti war may la yàlla warmal loolu it mooy danger weer yi ñu nar a jëm bakkaar yi nga doon def ci biti loolu lu grave la amma bakkaar yi nga def ci weer yi ñu jëm dafay boole bakkaar ak xotti la la yàlla ne woon lii bu ko def loolee kon di mbir moo xam ne nii ku nekk ñun war a góorgóorlu xoolaatal say farata toon gi gën a rëy dakkaar yi gën a rëy bokk na ci bàyyi farata xoolaatal la yàlla araamal ci yow xoolal aq yi nga xam ne yoroon nga ko doomu aadama yi soxna la doom la dëkkandoo la collègue de service la employé la comme mën a doon nga la way ku nekk nga góorgóorlu delloo ko la nga xam ne mooy aqam te ñu xam ne mbokk julit doomu aadama day mi ngi am problème ak bakkanam di xeex ak moom waaye it xamal ne yàlla nattoo nañu noon boo xam ne nii mi ngi ñu topp du bàyyi la nga xam ne mooy xeex ak ñun fii ak suñu ruux teqalikoowul ak ñun kookee mbokk mooy cheytaan cheytaane ba ko suñu borom yàlla génnee ci yërmandeem da koo ñaan na ko yàlla may ma ma dund ba baa bis penc di taxaw suñu borom yàlla na ko may naa la loolu mu ne ko nag maa ngi waat ci sa kattan ne ñii nga xam ne ñooy say jaam day danaa leen dikkal toog ci yoon wu jub bi nga leen wax ñu jaar la aqudanna lahum siraataka almustaqim gannaa ba yàlla danaa leen dikkal ci seen kanam ay lépp loo xamee ni nii dafa nekk ci àdduna danaa ko taaral màggal ko ci ñoom ba ñu fàtte la danaa leen dikkal seen gannaaw la nga xamee ne mooy alaxira ji nga xam ne fa la ñu dee jëm fa danaa leen ko fàtteloo complètement ba duñ ko waajal danaa leen dikkal seen ndeyjoor lépp loo leen digal danaa ko màggal ci ñoom rëyal ko ci ñoom diisal ko ci ñoom ba duñ ko def danaa leen dikkal seen càmmoon lépp loo xam ne araamal nga ko ci ñoom danaa leen ko taaralal bànnee xam leen ko lu mu jafe-jafe lu mu cher cher danaa ko yombal ci ñoom bañ def ko yàlla maa ngi lay waatal na bu may pare ci ñoom lu ëpp ci ñoom danay fekk duñu nekk di la sant mbokk lii suñu borom nee na ba ko cheytaane di wax dafa jàppoon ne njort la far lam waxoon nag mujj am laqad sadaqa alayhim iblisu zannu iblis day dëggal na ci ñoom njort gam njortoon ñu topp ko lu dul lu néew ci jullit ñi yàlla yàlla boole ñu ci ñooñu loolu moo tax kon mbokk fagaru leen xam leen ne heure boo jógee jëm ci lu baax cheytaane takk na ngembam ngiree bañ nga def ko heure booy xalaat lu bon seytaane takk na ngembam di la ko taaralal di la ci ñaax nan la yàlla borom yërmande la dafa lii gannaaw da ngay tuub woyofal ko sa xol ba nga daal di dem di tàbb ci loolu nga la waay ku nekk ci ñun na fàttali ko sunu bàyyi ñun ñëpp di aadama alayhi salaam yàlla teral ko fa teraanga yem bind ko ci loxoom sant ay malaakam ñu sujuutal ko tàbbal ko biir ajjana fu la neex yàq sa soxna dem leen fu la neex lekk leen garab gële nag bu leen ko jege seytaane topp ko aadama xam ne sa borom li tax mu tere la garab gi day xam ne boo ko lekkee da nga ñu doon ay malaaka boo ko lekkee dootoo dee ba faw ay aadama kaay ma wax la nguur goo xam ne du ràpp di nax aadama di nax aadama suñu borom mu ne fa dallahuma bi xurur noonu na leen wàccee nànk-nànk di leen nax nànk-nànk ba ñu lekk garab ga naka noonu it mbokk noonu seytaane def ak sunu bàyyi noonu lay defee képp kenn ci ñun seytaane xëyegul kenn ci jaami yàlla yi imma mu dox sa digganteeg nga bañ a dugg ci lislaam wala boo duggee ci lislaam mu dox sa digganteeg lay ponk lislaam doo ko jëfe heure boo xamee ne nii rëcc nga ko ci loolu mu taaral ci yow la nga xam ne mooy ay bida la nga xam ne mooy bakkaar yu mag ya amul lenn loo xam ne seytaane dina ko xeeb ci yow loolu moo tax ba nga la waay mbokk ci weer yi nga xam ne dañ ciy dund ku nekk ci ñun na góorgóorlu waat fu mu mën a toll def ko weeri entraînement def ko weeru fagaru te xam ne suñu borom yàlla day ku màggal la màggal mu màggal la suñu borom yàlla day ku soofantal lam soofantal mu soofantal la loolee ku nekk war naa góorgóorlu mu bàyyi ci xel bu baax su ko defee kon mbokku lii mooy weer yi nga xam ne nii dañ koo warmaal ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne kenn du mucc di dul ko muccal yal na yàlla musal ñu ci suñu ay bakkan yal na yàlla musal ñu ci ay seytaane ak i pexeem yal na yàlla dox suñu digganteeg ñu koy tooñ yal na yàlla dox suñu digganteeg ñuy tooñ kenn ci ay mbindaa fanam yal na yàlla yombalal ñu yoonu njub yal na yàlla saxal suñu ndëggu ala siratal mustaqim yal nañu bëggaloo lépp luy ngëm ca taaral ko suñu xol yal nañu bañ loo lépp luy kéefee rek caaxaan ca ñaawal ko suñu biir xol yàlla mi may mut gu rafet yal na yàlla defal ñu mut gu rafet yàlla miy yërëmaate yal na yàlla yërëm mboole mi néewu jurit yi ñu jiital yàlla miy barkeel yal na yàlla barkeelal ñu suñu njaboot yal na yàlla barkeelal ñu suñuy am am yal na yàlla subhanahu wa taala defal ñu àjjane firdawsi mi suñu wàccuwaay yi allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi alaxirati xasana وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين